information yu am info ngeen jëf yéen ñuy suivre Feeling Dakar TV mbégte la am di janook yéen ci ay information yoo xam ni dañ koy daal di jot nag bile information nag tey jii mi ngi daal di rek jublu ci li nga xam ni rek moo di vingt-neuf milliards yu Prodac yi nga xam ni euh, def na euh, euh, polémique ci réewum senegal ci at yi ñu weesu ba tax sax ki nga xam ni moo di Ousmane Sonko te jamono ji mu nekk le premier ministre du gouvernement du Sénégal ñu daal di ko ci rek xañoon mu nekk kandidaa ci élection présidentielle bu deux mille vingt quatre bii ñu weesu ki nga xam ni nag moo daal di génn daal di def des révélations choquantes jëm ci boobu le dossier de corruption wala sax dossier bu ñu dippe woon dossier de diffamation mu di le journaliste Babacar Touré bu Kéwoulo. ni ki démb rek lañ ko daal di invité foofee ca Seneweb mu daal di rek euh, fàttali ay mbir yoo xam ni bëri na ci sénégalais yoo xam ni euh, xamuñu ko woon ci dossier boobee nga xam ni rek moo di euh, dossier bu programme euh, domaine euh, programme des domaines agricoles communautaire di PRODAC moom daal nee na dossier boobee nga xam ni mu di ab rapport bu ñu waxoon ni dafa épinglé Mame Mbaye nee na daal rapport boobu am na te nee na Mame Mbaye moom moo ko woo en personne Babacar Touré di ko xamal rek ni rapport bi am na waaye ki nga xam ni rek moo ko jiite moo di euh, Amadou Ba moom moo ko bëgg a taqal ba tax na rek journaliste boobu di Babacar Touré moom itam daal di xamle rek nii loolu moo taxoon ki nga xam ni moo di Mame Mbaye daal di fare ci beneen kan ngir rekk daal di xeex. candidature euh, bu Amadou euh, Ba bi nga xam ni rek président Macky Sall moo ko tabboon ngir rek mu daal di nekk le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar ci élection présidentielle bi nga xam ni rek moom la ñu weesu ci fan yi euh, jàll moom Babacar dal di dinay xam ne rek nii ca jamono jooju ki ñuy wax Jean-Pierre Senghor Jean-Pierre Senghor nag nekkoon na bokkoon ci bras droit yi nga xam ni rek ñoo àndoon ak kii di Mame Mbaye waaye bi nga xamee ni Mame Mbaye sàkku na ci moom Jean Pierre Senghor ngir rek mu defal ko sale boulot yooyu ah, ci eh, sale boulot ngeen jégal ma ci kàddu yi noonu lañ ko daal di mën a jàppee rek ci yenn ci ay domaine agricole communautaire moom Jean Pierre Senghor dafa daal di lànk kandaare ne moom daal du def loolu ci jamono jooju nag la ko dal di ah, dàq daal di indi keneen koo xam ni mu ngi wuyoo ci turu ah, Mamina daafe Mamina Daffé moomu nag moom euh, Babacar Touré nee na bariwul lu ñu koy dégg euh, ci dossier bi nga xam ni rek moo nekk euh, dossier bu programme des domaines agricoles communautaire nee na Mamina Daffé moom i nag lépp loo xam ni eh, lu ñu doon def ci ay njuuj njaaj wala sax ci ay mbuxum ci kopparu askan boobu nga xam ni moo nekkoon foofee eh, ca Prodac na Daffé moo daal di exécuter ordre yi nga xam ni rek moo jige woon ci eh, Mame Mbaye Niang ci jamono yooyu loolee rek la ki nga xam ni moo di Babacar Touré. daal di xamle loolu itam bi mu amee ci la daal di rek moom Mame Mbaye Niang daal di formé li nga xam ni moo di ab groupe am ngir rek daal di xeex ki nga xam ni moo di Euh, le premier ministre di euh, euh, Amadou Ba ngir rek mu bañ a daal di nekk li nga xam ni moo di candidat bu coalition benn bokk yaakaar ci noonu itam ni ngeen ko xamee Mame Mbaye gis ngeen ko dafa bankoon ay yoxoom ci élection yi nga xam ni moom la ñu weesu battrelu campagne jàppalewul ki nga xam ne moo nekkoon seen candidat te njiitam réew mi mu fi nekkoon di Macky Sall tabboon ko te it mu daal di joxe woon ordre ngir ni na ko ñëpp rek daal di jàppale ngir rek mu daal di mën a nekk cinquième président de la république du Sénégal moom mi nga xam ne itam euh, moo di Babacar Touré nekk journaliste d'investigation ndax itam bëri na ci dossier yu bëri doon na ci wax tey nag bi mu àddoo ci yi di nay rek defaat beneen révélation bu xam ni dina daal di rek yëngal wala sax dina daal di intéressé ki nga xam ne moo nekk le nouveau premier ministre de la République du Sénégal di Ousmane Sonko moom Babacar Touré nag nee na ko dina ko daal di rek jébbal li nga xam ni moo di liste liste la boo xam ni nag ay ministre ci lañ bokk ministre de la République ay DG ci lañ bokk ci ñi nga xam ni rek jàpp na ni dañoo bokk ci ñu luubal alalu askan bi nga xam ni jamono ji ngir rek ñu daal di lijjanti boobu le dossier moo tax ñu daal di fay fal ki nga xam ni moo di le président de la république son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye Babacar Touré nee na euh, mën na jox ki nga xam ni moo di Ousmane Sonko liste bépp boo képp koo xam ni rek laale nga wala taq nga ci càccum alalu askan bi te ñoom nee na Babacar Touré révélation bi mu def moo di ñoom jamono ji ñu ngi préparer seen i bagage ngir rek daw génn réewum Sénégal moo tax journaliste bi di Babacar Touré di del di woo rek askanu Sénégal wala sax ñi nga xam ne ñoo yor frontières yi ñu daal di koy sécuriser surveiller ko bu baax ndax ñooñu nga xam ni ñoo jël alalu askan bi ñu ngi bëgg a jël euh, seen ay euh, kaaka ak seen ay bagage daal di génn daw li fi nga xam ni rek moo di réewum Sénégal dem tukki ngir rek ñu bañ leen a toppee càcc gu ñu càcc alalu ko askan bi di kàddu ki nga xam ni rek moo di Babacar Touré moom Babacar Touré sax nee na Macky sàll dafa leen a saraxe dafa saraxe ñenn ci ñi nga xam ni rek ñoo bokkoon ci gouvernement bi ndax bëri na ci ay rapport yoo xam ni rek dafa daal di épinglé yenn ci ay ministère am bi nga xam ni moo ci gën a euh, euh, doy waar te itam te ñëpp doon doon xaar ngir ñu leeral ko te amoon na ay enquête amoon na ay rapport mais boobu ba léegi France daal di xëddeen mu di dossier bi nga xam ni moo ñeeloon euh, dossier Covid. 19 bi nga xam ni 1000 milliards la ñu jëloon ngir rek daal di ko jàppale askan bi ngir ñu xeex mbas mi nga xam ni moo fi duggoon ci at yi weesu boobu la dossier nag lu toll ci 9 ministères la daal di épinglé maanaam euh, ministères yu bëri yu toll ci juróom-ñeenti ministères ñoom laa ca càcc googee nga xam ni moo tukkee ca li nga xam ni rek moo di Euh, euh, euh, for fond force Covid 19 bi nga xam ne indi woon na jiixi jaaxa jëye ak coow lu bëri ak mbile ak mbaboor ci réewum Sénégal moom Babacar Touré nee na daal dina yëkkati liste bi nga xam ni ñoom. bokk nañ ci ñi jël alalu askan bi ñu nekk ci ay jëwriñ ji tappaloon ay ndombal tànk nekk ay directeurs généraux nekk ay directeurs ci yenn ci ay société te jamono ji ñu bëgg a takk seeni i kàkk daal di génn réew mi mu nekk nag dossier yoo xam ni tey jii askan bi li ñuy sàkku ci le nouveau président de la république mu di ñu leeral ko ba képp koo xamoon ni rek jëloon nga alalu askan bi nga daal di koy guqi jox ko ñi nga xam ni rek ñoo ko yelloon ba tey ci Prodac boobu nga xam ni moo di euh, programme de domaines agricoles communautaire boobee ki nga xam ni moo di Thierno Alassane Sall Thierno Alassane Sall nag kenn dootu ko présenté ci réewum Sénégal ndax. candidat la woon ci élection présidentielle bii ñu weesu waaye itam nekkoon député à l'Assemblée nationale ndax bokk na ci ki nga xam ne moo tax tey jii yàlla ak moom ba ki nga xam ni moo di euh, Karim Wade nekkul candidat ndax moo déposé woon benn recours xamal ni rek dafa daal di am dafa def par jour ndax mi ngi ak double nationalité moom ci jamono yooyu dafa waxoon ni. le PRODAC est devenu le syndrome de la corruption générale et de la délinquance de notre administration di kàddu Thierno Alassane Sall mu di euh, PRODAC dafa nekkoon domaine boo xam ne euh, maanaam corruption la mbirum càccum xaalis boo xam ne rek dafay gangréner li nga xam ni moo di administration bu réewum Sénégal muy dossier yu boo xam ni moo fex moo taxoon ba ki nga xam ne Ousmane Sonko nekkul candidat ñu daanoon ko ci lu toll ci ñaari weer ak ndàmpaay gu mu waroon a jox Mame Mbaye Niang toll ci deux cent millions Mame Mbaye Niang daal di bindoon ci page Facebook ne alhamdulilah ba ñu setal ba ñu setalee sama der nis tuuti mu daal di supprimer post publication boobu nga xam ne defoon ko ci page Facebook am ñu daal di dugalaat li nga xam ni moo di ab recours ngir ñu defaat ab ab bi def ko fast track jël Ousmane Sonko daanaat ko lu toll ci juróom benn weeri kaso yoo xam ne di ko tudd 6 mois de prison avec sursis waaye itam daal di maintenir amende boobu nga xam ne moo tolloon ci million millions de francs CFA dégg ngeen jamono yooyu mu naan moom Mbaye Niang mu ne bu fekkente ni Ousmane Sonko nanguwul fay xaalis bi xam ne moom lañ ko am man ngir mu jox ma ko ndàmpaay dinaa saisir këram dinaa saisir ay bànkam loolu nag tey jii dañuy seet ba xam ndax moom Mame Mbaye Niang am na pouvoir saisir këru Ousmane Sonko wala ay bànkam ndax tey jii la toxoon mu ko doon wax mooy ñoom dañoo nekkoon ci nguur gi tey jii nag wàcc nan te Ousmane Sonko moo nekk ci nguur gi moo jiite gouvernement bi bi nga xam ni moom la ñu fal barki Dembo Ndiaye mu nekk vingt cinq ministres ak cinq secrétaires euh, d'État yoo xam ni tey jii ñooy gunge ñi nga xam ni ñoo yor ministères yooyu euh, tey jii daal loolu lañ indi loon ci dossier mu di ay révélation yoo xam ni yu choquante la jugee ci journaliste bi nga xam ni moo di Babacar Touré bi këwloo